asalaamaaleykum sama gaañ ñu ngi leen di siyaare bu baax a baax fii ci info foot en temps réel alxamis le 4 juillet ñu ñëw ci xibaar yi bu fekkee ne abonné go ñu ngi sàkku ci yow nga abonné partage lii di vidéo bi activer aussi cloche de notification bi pour que vidéo ñu dugal nga bokk si ñëkkee njëkk a gis fii ci info foot en temps réel gars yi aussi bu leen di fàttee di like dee leen sem vidéo bi lu ama am solo la ci seen bi xibaar yi ñu ngi ciy ànd ak Serigne Cheikh Al Amin Mbacké al amin Mbacke surtout Cheikh Sidil Muxtaar Mbacke radiyallahu taala anhu borom fas fas gi nga xam ne ci ngóoram rek lay dox sëriñ bi. fas ga ngi lakk dëkk waaw moom ñëpp xam nañ liy mbiram kenn nattab léewtu ko képp koo xam ne dangaa nekk mag ba ndaw am jafe-jafe néew kattan moo xam sa awara di nooy di lax ngay gaaw a yegg wala nga nekk nit koo xam ne santiroota sa bopp dara ci ngóor a jëlal fas gi fas la koo xam ne ci sama maam la jógee mu doon dond billaahi wallaahi wal kitaabi at yoo mën a am boo ko taqee taquk néew kattan loolu senegal gépp xam nañ ko adduna bépp xam nañ ko te njariñ dañ koy baaxee sénégalais njëriñ yi gi nga xam ne ci néew kàttan képp lay dox. du looy naan du looy na leer ndax fi jamono toll naan ak diw dala wër ci al amin Mbàkke surtout Seex Sidi Muxtaar Mbàkke radiyallahu taala anhu kon na gaañ fas gaa ngoog dawal wuti ko a gaawee. xibaar yi dañ koy commencé ci euh, Coupe d'Afrique des Nations après donc euh, trente quatrième édition bi nga xam ne. ki nga xam ne mooy Côte d'Ivoire gagné na ko Sénégal bi mu gagné moom mooy trente troisième édition Sénégal bi mu gagné woon en deux mille vingt deux moom moo doon fanweeru ak ñetteelu Coupe d'Afrique des nation donc fanweer bi ak ñeent ki ko gagné mooy Côte d'Ivoire donc gars yi pare. pour jublu ci fanweer rek donc juróom bi di trente cinq édition li nga xam ne moom mooy lii di coupe d'Afrique des nations kon eh, ki nga xam ne moom mooy eh, Côte d'Ivoire lu yàggula dara fii ak eh, donc ay donc ay weer dina jël li jëm ci wàllu coupe d'Afrique bi tegaat ko ci li nga xam ne mooy géew bi gaañ ñi daal di koy xëccoo pour que ñu xam. ban pays donc moo pare donc pour remporter li nga xam ne moom mooy Coupe d'Afrique des Nations trente cinquième édition bi ba xam Côte d'Ivoire am na capacité pour gagner li nga xam ne moom mooy quatrième lii di euh, lii di euh, kaanam wala boog même est-ce que Sénégal pare na aussi pour gagner lii di deuxième kanam après donc atum deux mille vingt et tey jii nag sama gaañi moo doonoon bisu tirage au sort. après 34e euh, édition bi nga xam ne donc ki ko doon dalal moom mooy Côte d'Ivoire daal di koy euh, dalal xew mi ba noppi daal di koy gagné euh, ki nga xamante si nii donc moom mooy réewu naar lay amee bii yoon moom mooy fële ca Maroc Maroc bi nga xam ne ñoom bu Coupe d'Afrique bi jàllee ñi ngi war a donc jublu ci li nga xam ne moom mooy coupe du monde bi nga xam ne mi ngi ko bokk ak ay réew yu ci demee ne Espagne Portugal donc war a bokk même ñi nga xam ne ñoom ñooy waa Uruguay kon ñoom euh, ñi ngi xaarandi ci ñoom benn euh, Coupe d'Afrique des Nations bu mucc ayëpp ci nouveau organisation waaye tamit ci côté li nga xam ne mooy côté euh, footballistique yooyu yëpp ñu ngi koy xaarandi te gëm nañu ne donc dinañ ko gis parce que li nga xam ne moom mooy talent Afrique yi ñi ngi ñëw bu baax a baax donc 35e édition bi. Maroc lay amee kon prochaine Coupe d'Afrique des Nations 2025 2026 Maroc lay amee te ki nga xam ne moom la ñuy tuddee donc Motsepe di président euh, confédération africaine de football ñu koy tuddee CAF maanaam daal président CAF bi nee na yaakaar na ne Coupe d'Afrique des Nations bii ñu jëm nii war a amee fa li nga xam ne moom mooy ca Maroc man naa doon coupe d'Afrique des nations bi dàq ci histoire coupe d'Afrique des nations kon mu doon loo xamante si ni benn xeet compliment la boo xam ne defal na ko ki nga xam ne moom la ñuy tuddee waa Maroc moom président wu CAF bi et j'espère que donc loolu eh, dina am plus que kaan ngi dem plus que nañuy gën di gis ay kaan yu gën a am ambiance waaye am aussi yu am li nga xam ne mooy niveau sportif boo xam ne dina mën a janganteeg tout les. compétition euh, yoo xamante si ni am na ci àdduna bi ni muy demee nag mooy bépp kayit bépp euh, équipe wala nation boo xam ne am nga kayit buy firndeel ne yow mën ngaa participer rek da nga participer moom moo tax euh, fi ñu toll nii 48 équipes maanaam daal ñeent fukki ak juróom ñoom ñooy dem qualification 48 équipes bi nag dañ leen di jël tas leen ci ñeenti fukki groupe ak ñaar ci 12 groupe lañ ne di tas groupe bu ci nekk dina am ci lu toll ci ñeenti équipe kon 48 équipes ñooy dem mat match qualification qualification li ñuy def actuellement parce que faaw ñu ngi def qualification pour que ñu xam kan ak kan moo war a qualifié ci li nga xam ne moom mooy kan bi bu jigee ci qualification yi après donc dem ci li nga xam ne moom mooy compétition bi donc qualification bi 48 équipes la 48 équipes yi dañ leen di jël tas leen ci 12 groupes ci 12 groupes yi ñu leen tas nag moom groupe bu ci nekk donc dina am 4 équipes donc groupe groupe A. quatre équipes donc groupe B groupe muy yegg li nga xam ne moom mooy groupe L donc au day toll ci 48 équipes 12 48 équipes 48 nations 12 donc groupe et chaque euh, groupe toll ci 4 euh, équipes Sénégal moom xaw dina xaw am sens ci par rapport ak tirage bi pourquoi muy xaw am sens parce que moom ak euh, nation yi nga xam ne ay nations yu mag la dañuy bokk ci li ñuy tuddee SAPO 1 te lan moo tax bokk SAPO 1 neex mooy dalay permettre nga bañ a daje ak réew yu mag yi. par exemple boo bokkoon SAPO 1 après donc ki nga xam ne moom la ñuy tuddee Maroc tamit bokk SAPO 1 Côte d'Ivoire bokk SAPO 1 Mali bokk SAPO 1 ce qui veut dire que yow doo mën a dajeeg Mali doo man a dajeeg Côte d'Ivoire doo mën a dajeeg aussi Maroc donc Sénégal amoon na opportunité boobu bu baax a baax moom ak ku ci demee ne Maroc. leneen li nga xam ne aussi am na ci groupe yi li ñu war a bàyyi xel mooy que groupe bu ci nekk aussi nañu comprendre ne les deux premières ñooy qualifié. groupe bu ci nekk ñeenti équipe la ñeenti équipe yi ki jël première ak ki jël deuxième donc ñoom ñooy dem Maroc donc ku ci jël troisième amul meilleur troisième amul aussi quatrième beeg nii la demee patati patata donc ku xas ba jël première dem nga officiellement te première bi am na solo parce que tamit dalay éviter nga bañ a bokk ci li nga xam ne moom mooy sapo 2 bi te boobaa mën ngaa da jege ponkal. pour ci euh, côté tirage au sort bi donc ci groupe A bi mën nañ faa fekk Tunisie Madagascar. Comores ak Gambie gaañi Gambie euh, moom équipe la boo xamante si ni buñ dara bàyyi xel ci groupe bi Madagascar depuis 2019 tegul tànkam ci Coupe d'Afrique donc moom bëgg na faa teg tànkam Comores aussi depuis 2022 bi ko Sénégal mujjee gagné donc ñoom tamit boobu ba tey teguñ fa seen tànk su ma juumul ba mu mujjee woon Cameroun moo lay éliminé woon. après quelques absents yu am solo yu amoon bañ mujj jël ab joueur Deschamps donc di ko footballoo ci côté euh, lii di euh, milieu euh, gardien de but groupe B bi aussi gars yi dañu fay fekk Maroc Maroc mi nga xam ne daa bëgg def li Côte d'Ivoire def maanaam organiser Coupe d'Afrique ba noppi gagné ko ñoom après depuis des années et des années gagné wuñ Coupe d'Afrique Gabon depuis 2022 dikkul tamit ba Sénégal mujjee gagné Coupe d'Afrique gaa bi Centrafrique musul gagné coupe musul musul jouer Coupe d'Afrique des Nations ñoom waa Centrafrique bu ki nga xam ne moom la ñu tuddee Godobia ki nga xam ne moom la ñu tuddee Lesotho aussi donc ki nga ne moom la ñu tuddee Maroc euh, Gabon ak Centre Africa kon Centre Africa moom yaakaar objectif mooy participer CAN pour la première fois groupe C bi dañu fay fekk Égypte Égypte mi nga xam ne moom mooy nation bi ëpp lu mu gagné ay Coupe d'Afrique des Nations réew mi ëpp mu ko gagné Cap-Vert euh, ak euh, Mauritanie ak Botswana donc Botswana. Euh, loolu moom moo composé groupe C bi groupe bu intéressante groupe bu nar a bu baax a baax a baax surtout Cap-Vert et Mauritanie donc euh, trois grandes nations yoo xamante ne vraiment seen groupe bu C boobu noonu mën naa am surprise. après le groupe C dañuy dem ci groupe D fekk fa ku ci demee ne Nigeria moom moo ko jiite moom mi mujjee finalu Coupe d'Afrique des nation ñoom waa Nigeria war cee jàmmaarloo ku ci demee ne Bénin Bénin depuis 2019 euh, ñëwul Coupe d'Afrique su ma juumul 2019 Sénégal ko génne woon ci compétition bi euh, but marqué par Idrissa Gana Gueye 1-0 lañ leen dooroon libi ñoom depuis 2012 mooy ba Zambie mujjee gagné Coupe d'Afrique ba tey ñëwuñu Rwanda aussi kon groupe D bi am na ay objectifs Bénin depuis 2019 Libye moom. depuis deux 2012 tegul tànkam foofu après groupe euh, boobu dañuy wax ci groupe E donc groupe E aussi mën nañ ci fekk ku si demee ne Algérie donc Algérie mi nga xam ne ñoom it euh, après 2019 ba tey ñu ngi wër seen euh, Coupe d'Afrique des Nations Guinée équatoriale nga xam ne ñoom it gars yi ràññe nañ leen bu baax a baax ci dernière Coupe d'Afrique des Nations yi Togo Togo aussi depuis 2017 ñoom ñëwuñu Coupe d'Afrique des Nations ñoom waa Togo Libéria Libéria aussi donc nekk ci groupe E bi kon groupe E bi favori bi mooy Algérie et équatoriale donc Togo bëgg dellu Coupe d'Afrique la première fois depuis 2017 après donc dañuy dem ci groupe F bi fekk fa ki nga xam ne moom la ñuy tuddee Ghana borom génération doré bi mais aussi tamit euh, amuñ li nga xam ne moom mooy coach bu am capacité pour yóbbu leen fu sore sori Angola Jordan ak ki nga xam ne moom la ñuy tuddee Niger donc ñoom ñoo composé li nga xam ne moom mooy groupe F bi yaakaar naa ne gana Angola ak Soudan. moom it groupe la bu intéressant surtout Soudan dernier match li nga xam ne da koy montré bu baax a baax kon groupe F bi ko bàyyi xel. après donc groupe F dañuy dem ci groupe G fekk fa ki nga xam ne moom mooy Côte d'Ivoire mi nga xam ne moom mujjee gagné coupe d'Afrique des nations bi Côte d'Ivoire di wër ñeenteelu coupe d'Afrique de nation fekk fa aussi Zambie mi gagné woon coupe d'Afrique des nations 2012. ñoom ñaar sax ñoo demoon final donc revanche lay doon ci waa Côte d'Ivoire euh, ki nga xam ne mooy Sierra Leone aussi ak Tchad donc lii mooy ñi composé affaire bi donc groupe bu neex lay doon surtout match ci Zambie vaas ak kii di Côte d'Ivoire après groupe G donc dañuy dem ci groupe As fekk fa RD Congo euh, Guinée ak ki nga xam ne moom la ñuy tuddee Tanzanie ak Éthiopie. donc euh, mu doon groupe boo xam ne RD Congo bi nga xam ne mook Sénégal ñoo bokk lii di euh, poule pour match si qualification coupe du monde 2026 Guinée bi nga xam ne aussi jotoon na laale ak Sénégal ci li nga xam ne mooy dernière coupe d'Afrique des nations bi donc euh, groupe la aussi bu intéressant avec aussi des équipes yoo xam ne équipe bu la maanaam daal équipe yi dàq football ci coupe d'Afrique Eh, daanaka ñenn ñi ñi ngi foofu après groupe as groupe I bi dañ fay fekk beneen nation aussi boo xam ne mi ngi dox di ñëw ndànk-ndànk mooy kii di Mali mi nga xam ne aussi yor na ab génération bu doore donte seen euh, problème mu discipline bokk na ci seen équipe bi lan moo tax mënul avancé à l'image donc bi kii di Bissouma euh, bokk ak kii di Mozambique Guinée-Bissau ak ñii di euh, Estonie donc ñii ñoo composé li nga xam ne mooy groupe I bi après groupe E bi dañuy dem ci euh, beneen groupe di groupe J fekk fa ki nga xam ne moom mooy tudd euh, Cameroun mi nga xam ne moo organisé woon Coupe d'Afrique des Nations bi Sénégal njëkk euh, gagné Cameroun gonk bokk ci ak ku si demee ne Namibie Kenya war a bokk waa Zimbabwe donc ñi ñoo composé groupe bi yaakaar naa ne mën nañoo am match bu neex comme par exemple diggante Namibie ak Cameroun donc ci groupe J bi nga xam ne vraiment Cameroun mën na ci génn facilement. mais aussi tamit problème mu discipline aussi ba tey dañuy dem aussi ci groupe K donc fekk fa ku ci demee ne centre de kii di euh, Afrique du Sud donc euh, waa Sud Africa ñu organisé woon coupe du monde 2010 ñoom kese ñoo mës a organisé coupe d' Afrique coupe du monde ci continent bii di Afrique 2010 boo ko Espagne gagné Ouganda euh, Congo ak ñi nga xam ne waa Soudan du Sud donc Soudan du Sud bu ma juumul ñoom ak Sénégal ñoo bokk si lii di qualification coupe du monde 2026 donc. kii di Afrique du Sud moom mooy euh, favorite ci li nga xam ne moom mooy groupe K boobu noonu. suñu jógee ci groupe boobu dañuy dem ci dernier groupe bi di groupe euh, L fekk fa Sénégal mi nga xam ne aussi euh, équipe bu li nga xam ne moom mooy. désespoir la gars yi amoon ci surtout dernier coupe d'Afrique des nations bi ñu doon xaar Sénégal dem ba au moins une finale ou bien bloc ci dernier carré bi finalement jul am Burkina Faso mook Sénégal dañoo woon nañ en euh, deux mille deux mille deux mille vingt deux Malawi ak ki nga xam ne moom la ñuy tuddee Burundi donc lii mooy composé groupe L bi kon gaa ñi loolu moom mooy li nga xam ne moom mooy lii di euh, tirage au sort pour les donc qualification yi nga xam ne war na am pour que ñu xam ban réew ak ban réew donc ñoom ñoo war a teg seen tànk ci li nga xam ne moom mooy prochaine coupe d' afrique des nations ci match qualification li nag qualification la mais compétition bi donc dikkagul dëgg-dëgg ban mooy groupe euh, de la mort wax leen seen xalaat donc ci commentaire yi mais en tout cas am na ay groupe yu saf sàpp mais groupe bi nga xam ne daal xam naa ne moom dina saf groupe C groupe bu Égypte bii Cap-Vert mii ak Mauritanie <laughs> yaakaar naa ne dina bokk ci groupe yi nga xam ne mooy gën a compliqué dina bokk ci groupe yi xam ne moom la ñuy gën gis ay match suisse parce que ce sont des équipes yoo xamante ne nii équipe yu lañ actuellement man daal ba ma doon joxe sama groupe de la mort yaakaar naa mooy groupe de la moom groupe C mais en tout cas wax lañu si commentaire yéen yan ngeen gis ne moom mooy groupe de la mort. pour lu jëm ci euh, wàllu nag calendrier bi ci côté Sénégal première journée ak deuxième journée maanaam daal premier match Sénégal ak deuxième match le deux septembre mooy doon première journée et le 10 septembre deuxième journée ce qui veut dire que d'ici un mois deux mois ñaari weer donc juillet août septembre donc le deux septembre te ñu ngi ci le 4 juillet donc le 2 septembre et le 10 première et deuxième journée donc troisième ak quatrième journée maanaam ñetteel ak ñeenteelu journée bi dinañ ko am le 7 euh, octobre ak le 15 octobre bu fekkee ne juróomeelu journée bi ak juróom-benneelu journée bi dinañ ko am ci le onze et le dix novembre donc après dinañ dikk ci par rapport ak li nga xam ne moom mooy match yi ni mu tegaloo ci côté équipe nationale bu Sénégal mënuñu dikk dikk ci yi nga xam ne donc moom la gars yi gën a xaarandi surtout sunu équipe bi nga xam ne moom mooy équipe nationale du Sénégal par rapport ak li nga xam ne moom moo koy xaarandi et j'espère que Sénégal na a bi donc euh, xam ko te njariñ dañ koy baaxee moo tax buur ñu ñëw indil sénégalais njariñ yi ñu jàkkaarloo mooy fas gi nga xam ne ci néew kàttan képp lay dox du looy naan du looy diwoo na leer ndax fi jamono toll naan ak diw dala wóor ci al amin Mbàkke surtout Seex Sidi Muxtaar Mbàkke radiallahu taala anhu kon na gaañ fas gaa ngoog dawal wuti ko ci nu mu gën a gaawee